dex bii nii bohole ñu boole boo xoolee fii sa càmmoñ Mauritanie mu ngi ñalé ñuy sen ñun ñu ngi fi Sénégal digënté bi matul un kilomètre donc benn peuple la benn histoire la té développement émergence mëno ko tabax mëno ko defar bo ignorer culture ignorer environnement nga ignorer géographie la géographie ci bopom moñu bolé histoire moñu bolé té ci tay mu ngi vulgariser benn bu am solo ñu tuddé ko SATI SATI moy lan schéma d'aménagement transfrontalier intégré schéma d'aménagement bu koy tekki ci bokay koy tekki ci wolof manam jumtu kay la bo xamanteni dañuy bolante suñu doole geussu xol suñu jafé jafé lan la xol solution yi ñu wara taxaw taxawal pour régler jafé jafé lan la ñu bokk ko defando ensemble né nak ci diir bi lañ koy def manam ci fi ak ñaari at wala fi ak ñetti at lañ koy def ñun ñep ñu bokk d'accord ci buñ ci d'accord ñu dem wuti ressources yi wuti jumtu kay pour mën ko def ñun suñu walu bop ki ñu yoni fi suñu ministre mo ñu yoni fi moy Mamadou tala ministre des collectivités territoriales mo ñu wax jóg ngeen dem rencontrer population yi ngeen dem xoli sen jafé jafé yi parce que président Macky Sall loolu la bëgg xoli jafé jafé yi gis ko xol ko tay bu ngeen xolé tefes gi da ngeen gis ñi ñu ngi ci gal yi ñi ñu ngi défar gal ñi ñi ngi défar leneen ak leneen ak leneen donc ça veut dire que tay li moy Sénégal projet i territoire bi dañ japp né numérique lu jëm ci xarala bi jëm ci walu ordinateur moo yor àddina bi légui tay ci tay internet ordinateur ku ko mënul liggéey daanaka sa développement day jafé moo tax ñun ñuy gëstu mettre en place ce projet là tout tuddee ko e-territoire pour permettre gox-goxaan yu sori yu mel ni Bakel wala fenen ak feneen tey nga mën am internet ci biir dëkk bi mën am internet ci biir mairie bi boo soxlee benn information léegi léegi nga bës bouton information bi ñëw. donc loolu moo tax bi ñuy ñëw ñu indaale matériel informatique ji ma équiper euh, le réseau jàppale leen ci ay jumtukaay ay xarala te loolu lu ñuy continuer la parce qu'on va mettre l'accent sur ça jàppale collectivités locales yi même pourquoi pas la presse jàppale ngeen mën a am ay xarala yu leen mën permettre il faut remercier de vive voix au nom de l'honorable député maire et au nom de l'ensemble des maires du bassin du fleuve Sénégal le directeur général de l'ADL. Vous venez de poser une pierre dans le désenclavement. L'État du Sénégal aujourd'hui parle de désenclavement terrestre et parle de désenclavement numérique. Mm-hmm. Vous venez de poser cette question ici, à Bakel, en dotant le réseau d'ordinateurs euh, au nom de, de, ce développement numérique. Euh, on ne peut que vous remercier et de vous féliciter de cela. Nous avons dit au chef de l'État, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des éleveurs, nous sommes des pêcheurs, nous avons tout ce qu'il faut, il nous faut seulement un désenclavement, un désenclavement, comme on dit, terrestre et un désenclavement numérique une pierre vient d'être posée, on attend la plus grande pierre, c'est celui du développement, et c'est ça qui est important pour nous.